ak Mawlana Cheikh Ibrahim ak Mawlana Cheikhul Khayri ñi ngi ndokkeel mboolem ñi di kasal suñu sëriñ Mawlana Cheikh di ko ñaanal daayiman gudd fan wér gi yaram bi jaahi rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallam. sallam ñi ngi ñëwaat ci beneen beyti Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne boo demee si jaamiwu jawaamiwu da ko fa gis ci rabbal ibaadi xaafira zunubi ba mu jeex mu doon ay wax yoo xam ne dafay laaj tamis tout temps te taalibe yu bëree réeree nañ ci su ko defee firi bi ko bëgg a firi mooy firi professeur bi di Mawlaana wa Mawlaakum Cheikh Ousmane Mbow firi bu mu ko firi waaye danañ ñëw ci firi bi nga xam ne moom la ko gars yi firee d'abord suñ paree ci loolu nag ñuy déglu cessement boobu moom nu mu ko firiyee kon su ko defee si loolu la ñuy ñëw leeral jaam yàlla yi xamal ne nii la ko Cheikh Ousmane Mbow firiyee waaye gars yi nii lañ ko frie avant loolu dana ñëw xamal gars yi ñun seen soppee lañu du ñu seen noon te dañ ñëw pour leeral xam-xam te jamono ji képp ku jóg di leeral xam-xam dañuy wax ne kii dafa xamadi kii dafa dafa réew dafay manqué muqaddam yi respect te alors que lu ngay wax rek mooy xam-xam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci hadis lépp li nga xam ne gis ngeen ñu sib ko mu ne na ngeen ko génnee si seen loxo bàyyi ne taxawal loolu buura ko man léegi nag tey boo xoolee jamono bi ñu bëre dañuy génne si seen loxo euh, dafay wane rek ay buur lañu duñu ay sëriñ duñu ay muqadam léegi nag yonent bi ne su fekkee mënoo loolu na ko génnee sa lamiñ te loolu la boroom xam-xam man waaye léegi boo seetloo ñu ci bëre ñu génnee seen lamiñ ci lu baax waaye ay saaga la ñuy def wala ñu lay menacer loolu rek la ñuy génnee seen lamiñ te li leen di xaar mooy nañ génnee xam-xam si seen lamiñ su fekkee nag yonent bi ne na fekkee mënoo yooyu tamit nanga nga na nga ko métitlu lu ci sa xol te loolu mooy imaan bu gën a daif bu gën a faible kon nag bu ñu gisee lu ñu sib ñu war koo génnee loolu ñun bu ñu ko defee wala sees man Mbow di ko def ñun ñu nekk ci ginnaawam di ko roy lii digle yonent bi la wala lii digle bi du digle yonent loolu nag dama koy bàyyi comme ay borom xel ngeen ngeen xalaat ci fan yi rek dañuy tënk mun a ñëw ci bayti bi nga xam ne war nañ ko firi ñu ngi gis ay wax yi doy waar ay mukadam yoo xam ne tey boo leen tafee wala teg seen vidéo ñoom propre mukaddam yooyu sax ñoom ñoo lay woo di la menacer di la saaga te yoo nga ne dangaa jiite mbooloo ay taalibe di woote man la diw sangam taalibe diw sangam du am dara lu mu lay wax daf lay saaga menacer la lii dafa doy waar trop trop trop te ñun dañu war a leeral moo tax lan moo tax Sesmane dafa wax ne lan moo tax taalibe bàyyi mënuñu nekk ci benn mënuñu nekk benn seesement leeral na ko lu tax taalibe bàyyi mënuñu nekk benn mu ne parce que ku nekk da nga bañ ñu vérifier li nga yor que ku nekk da bañ ñu vérifier li nga yor waaye saa soo nangoo ñu vérifier li nga yor kenn ku nekk nangu ko seesement boobu nangu ko dégg beneen muqadam nangu ko beneen muqadam nangu ko ba mu jeex kon lépp dana leer waaye lu tax ngay bañ ñu vérifier li nga yor mooy fi nga toog moo moo moo nekkul dëgg maanaam li nga yor du dëgg waaye su fekkee li nga yor dëgg la da ngay nangu ñu palper la ba mu leer dafay mel ni yow mi war a dugg ci terrain pour dem seetaan football wala seetaan lamb wala lépp li nga xamante rek dañ ciy fay wala dangay dugg dem seetaan am policier yi taxaw ci bunt bi war la visiter palper la pour xool ndax yaa ngi yor ab paaka wala jaasi wala ñaw ko boo xam ne boo duggee mun nga ciy lor nit léegi nag soo nangoo ñu visiter la rek kon dafay wane ne yow wóor nga waaye boo bañee wala am ni ngay jéem a def rek dafay mel ni kon am na loo yor loo xam ne war naa lor gaay kon nag su fekkee xam-xam bi nga yor wér na nangul ñu visiter la nangul ñu palpe la nangul tamit ñu xool càmbar say mbir ba mu leer su ko defee yow bu ñu xoolee sa mbir dañuy xam ne yow ndekki yow fii nga toog bàyyi lii la waxoon lii la yonentu wax lii la Cheikh Tidiane wax lii la téere maam yàlla bi wax kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax lii moo tax si Ousmane ne gars yi lu tax jubóowuñu lii rek la parce que ku nekk da ngaa bañ ñu palper sa mbir léegi nag si Ousmane wax na beneen yoon encore mu ne taalibi bàyyi dañuy wax ne nañ nekk benn waaw loolu la yàlla bëgg a parce que nekk benn loolu yonentu bëgg dégg nga nekk benn loolu Cheikh Tidiane bëgg nekk benn loolu la bàyyi bëgg nekk benn moo la loolu la Mawlana Cheikhul Khayri bëgg waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu kon jàpp leen ci buumab yàlla bi te bu leen séparé wu kon ñii yëpp gërëm nañu laaya bi léegi nag pour ñu nekk benn faaw ñu dajee ci dëgg Cheikh Ousmane ne faaw ñu dajee ci dëgg su fekkee nag yow da ngay nekk ci lii man ma nekk ci lii ñu ne nañ leen nekk benn loolu mënut a ne tane bu fekkee man lépp lu may def xam nga ni baaxut waaye nga ne da ngay maandu ci man loolu du maandu wala boo ko tuddee maandu kon maandu min iblis maandu bi ci iblis lay bàyyi ko kon nag yonent bi wala chabrahim wax na ne asaakitu anil haq kal mutakallimi bil baatil dégg nga mu ne nga noppi ci dëgg yow ak ki nga xam ne mooy wax ay fen ay neen yéen a yéen a tolloo daanaka loolu xadis la woy sax yonente bi wax na ne asa asaakitu anil xaq seytaanun axarasun mu ne nga noppi ci dëgg dafa mel ni seytaane boo xam ne dafa muuma léegi nag yow su fekkee yow danga nga noppi ci dëgg ñun préféré wu ñu noppi ci dëgg nag léegi nooy def fan rek benn jaamu yàlla xam naa dinañ leen tegal waxam mu ngi du wax benn vidéo saan di wax ne ñun mbawee ni ñoom ñooy yàq faydi wala bëgguñu euh, bëgguñu bëgguñu bàyyi mu ne surtout Cheikh Ibrahim soxna mi dugal na ko ci def ay croix am ndeysaan waaye ñun suñ bëggul bàyyi kan mooy bëgg bàyyi dinaa wax lu lu Baaba Lamine waxoon Baaba Lamine doomi Cheikh Ibrahim ñu koy ñaanal gudd fan wér yaram di jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax na ne gars yi ñu ngi wax ne ñun duñu ay tijaan maanaam dañu bëgg a génne si tijaan yi mu ne kon ñun taalibe Baay suñu nekkut ay tijaan kon bu ñu génnee si biir tijaan ya rek kon tijaan dootul dootul amaat kon ñun loolu la ñuy waxaat su fekkee ñun duñu taalibe Baay su fekkee ñun duñu taalibe Baay kon taalibe Baay amut waaw su fekkee ñun duñu taalibe Baay kon taalibe Baay amut parce que Baay dafa digle tere dégg nga léegi nag li mu digle ñun topp nañ ko Baay moo ne toppal xalifa la ñun topp nañ ko te yow toppuloo ko est-ce que yow kon taalibe Baay nga Baay ne la man am naa sëriñ yow nga ne ko Baay amoo sëriñ bàyyi ne la man nit laa nga ne ko doo nit yàlla nga yii yëpp ñun ñu koy topp lu Cheikh di wax yow toppaloo ko nga ne ñun duñ daal bi bàyyi parce que liñ lay wax moo la neexul dëgg bi ñuy génne moo leen neexul kon nag ñun ñu ngi sant yàlla ci tànk bi ñu taxaw Cheikh Ousmane nag seen soppee la parce que su leen bëggutoon kon ni ngeen noppee ci dëgg noonu moom noonu la ciy noppee waaye nii la ko yàlla programmé dafa war a tegu ci dëgg moo tax Abdoulaye buñ ko laalee tuuti boo xoolee ñu bëri ponkal yi bëri wax nañ ci woon waaye da nga gis ne maasul gars yi parce que ñu koy wax boo xoolee branché wuñu ci xalifa yàlla bi moo tax moo tax seen wax mënta maas gars yi waaye Cheikh Ousmane bi mu ñëwee toog wax Abdoulaye wal Jihaj sëriñ la Cheikh Ibrahim da nga gis naqari na gars yi parce que ni mu koy waxee la mënat la ànd moo àndal moo tax gars yi commencé ko weddi di weddi di weddi waaye bu ñu dem ba ci biir noppi nañ de parce que xam nañ ñu lu mu wax dëgg la te li yëpp mu ngi ko jëlé ci ay téré Cheikh Ibrahim diko lire kon nak bay leen tapalé bay leen dof-doful li yëpp bay bind nako bu leen nek ay mbeut bu leen nek ay mbeut kon nak ñi ngi santaat yàlla bu baax te nak ñu ñëw ci bayti Cheikh Ibrahim bi bay fi muy wax ne nalal muna man qad atani awala wa akhiran ya akhiran ya awala ah mu doon bayti bo xamné wax deug yàlla taalibu baay yu bëre dañ koy ndama wax du ma ne taalibu sax soi-disant taalibu baay dañoo rër ci ci waxu Cheikh Ibrahim bii dégg nga baay dafa ne naa la jot na wala naa la am na baay mu ne naa la am na almunaa mbébétam kan mu ne man ki nga xam ne xat sa dëgg-dëgg xarfu taq sa dëgg-dëgg dégg nga naa la almunaa man xat ataani awala ki ki nga xam ne daf maa dikkal man ki nga xam ne ataani daf ma dikkal awala si njëlbeen taxawal Cheikh Ousmane nee na ki dikkal Cheikh si njëlbeenam parce que baay mi ngi juddu mille neuf cent génn mille neuf cent soixante-quinze waaye si vingt-neuf trente ci la woote faydu kon lan mooy jamono Cheikh Ibrahim jamono Baye mille neuf cent ba mille neuf cent soixante-quinze léegi mille neuf cent ba mille neuf cent vingt-neuf mi ngi ci guddiam am na ki nekkoon ci bëccëgoom te kooku mooy Abdoulaye Walidi Hadj ki ngeen di bañ a dégg kon nag boo ñëwee vingt neuf ba soixante quinze Baye mi ngi si bëccëgam kon Baye lii mooy jamonoom kon Baye mi ngi wax si ñooñu jamonoom lay waxal te suñ ko firee da nga xam ne Baye ñooñu jamonoom lay waxal te xam ngeen ne yonent bi cinq cent soixante dix la nga six mu génn àddina kon kooku soixante trois la dund loolu mooy jamonoom léegi boo bëggee dof doful nag nga ne yonent bi bind nañ ko laata aadama di ñëw nga bëgg ne yonent boobu la ñuy waxal yonent boobu xàkki ka la de te yonent boobu dégg nga amul zaman ndax moom xaqiqal amul zaman kon nag boo ñëwee si Seexu juddu ama naksin mu génn aana ama yaskur mu dundu quatre-vingts ans kooku am na jamono loolu mooy jamono waaye boo buggee dof doful na nga ne Seexu Tijaan boo xam ne nekkoon na fi lu yàgg kuntu waliyan aarifun bi wilaayati nga bëgg a jàpp boobu la ñuy waxal kooku xaqiqal du sëriñ tey tamit du am taalibe parce que kooku xaqiqa la dégg nga waaye nag soo seetee Baye Niass wax naa la mille neuf cent ba mille neuf cent soixante-quinze loolu lay jàngale nii bayti bi lool lay jàngale lan moo koy wane dafa wax ne jot na wala am na mbébétam kii nga xam ne dikkal na ma ci njëlbeen ci njëlbeen léegi ñan ñëw dikkal Baye ci njëlbeen bu dee si zahir lu ñuy gis nii Baye Mbaye bokk na ci moom la ñuy wax ne moo njëkk naal n'est-ce léegi nag Cheikh Omar Touré dikkal na ko dégg nga Seydi Ali Cissé dikkal na ko maam Ibra Fall dikkal na ko baay ma lay càmm dikkal na ko ba mu jeex ñii dañoo dikkal Cheikh Ibrahim si njëlbeen te loolu yëpp baay mu ngi ko commencé ci Kossy c'est souvent ne ñii bokk nañu si ñu njëkk dikkal Cheikh Ibrahim si njëlbeen xam nga leer na kon bàyyi mu ne jot bàyyi mu ne am na mbébétam ki nga xam ne dikkal na ma si njëlbeen kon ñii ñoo njëkk a seeti Cheikh topp ko xam nga nit mun na topp baay te fekk toppul mbiru baay bi bu boobaa kooku du nekk taalibi baay waaye xarit lay doon Cheikh xarit kon baay wool xarit waaye taalibe lay wax taalibe lay waxal léegi ñi ñooy njël ñi ñoo njëkk dikkal Baay Ñas si njëlbeen léegi mujjantal Cheikh Ibrahim lan la fii nag la ñuy ñi réer mujjantal Cheikh Ibrahim pour ñoom Baay bu mu génnee àdduna ba léegi ba man ma ñëw keneen ñëw keneen ñëw bi ñun ba léegi ñun ñoo nekk ci mujjantal bi kon ñun tamit dañuy texe am nañ ci mbébét fekk du lii de ñun bokkuñu fa Baay dundam la la la la la la la la wax dégg nga man xat ataani ki ma dikkal man ki ma dikkal kon bo mi ngi dundu mu ngi dundu legi nak wa akhiran ak ki nga xamne ne moo dikkal ci mujjantal fi nak moy problème bi mooy ñi nga xamne ne Baye ñes di génn manam c'est ce ne 70 71 72 73 74 be 75 ñi nii yépp ñu dikkal Cheikh Ibrahim texe nañ tamit manam am nañ seen bébét léegi bu baye xasse dem ba génn àddina 75 nak ah léegi nak wa akhiran bi ñun dootuñu fa bokkaat parce que bàyyi moo ne ana arif ibnu waqti arif mooy doom waxtu bi dégg nga kon kenn ku nekk rek dafa am kiñ la booleel kon nag axiran boobu ñun bokkuñu fa moo tax fii la Seex Man taxaw ne depuis soixante quinze ba léegi dégg nga kenn mënatul tëbbu ci chabrahim maanaam depuis soixante quinze ba léegi ñooñu képp ku ñëw gannaaw soixante quinze nekkatoo taalib Baay ne ko saxaba chabrahim lii dëgg la lii dëgg la kon nag ñun ñu ngi sant yàlla bu baax ci seesmaan boobu jàngale yi muy jàngale yaa ngi dégg kon naa la déglul naa la am na dégg nga almunaa mbébétam man ki nga xam ne xat sa dëgg-dëgg ataani dikkal na ma awala si njëlbeen wa axiran ak ci mujjantal ba pare mu teg si nag dégg nga yaa axiran yaa awala lii nag boo boo xoolee pour motali bayti bi la parce que daanaka leeral na wax bi sax waaye ku ñu bu ñëwee ne yaa yaa axiran yaa awala pour motali bayti bi la eh yow mi mujj e yow mu njëkk kon nag ñi nga xam ne ñoo jiitu wax naa la ko ñi nga xam ne tamit ñoo mujj si Cheikh Ibrahim wax naa la ko kon ñun rang 75 lañ ñëw kon ñun du ñu saxaaba Cheikh Ibrahim waaye ñun ay taalibe bàyyi lañu ci xaqiqa parce que dañoo ànd ak kalifa yàlla bi moo tax ki nga xam ne moom la ñu bàyyi joxoñ kooku ànd nañ ak moom looloo tax kon ñun taalibe Cheikh Ibrahim lañu waaye ci xaqiqa waaye zahir bi ñun fekkee wuñu te bàñes moo wax si tafsir ne man amana bi jamii anbiya wa kafara bi nabi zamanihi fa huwa kaafirun xanaa lii jàngu leen ko yéen muqadam yi gën di wax xanaa lii jàngu leen ko njëkk leen topp lii ba pare man amana képp ki nga xam ne da nga gëm na bi jamii anbiya mboolam yonantu yi wa kafara bi nabi zamanihi nga weddi sa yonantub jamono bàyyi li ñu la atee mu ne fa huwa kaafirun parce que loolu daayira nubo wala moo tax foofu da ngay nekk yéeféer ndax foofu la yem Cheikh Ibrahim mu ne wa kazalika awliya naka waliyu yàlla yi tamit noonu man amana bi jëmi awliya képp ku gëm mboolem wali wi wa kafara bi kaamila ansrihi mu ne fa huwa maqtuun anillah tabaraka wa taala mu ne nga gëm mboolem wali wi nga weddi sa waliyu jamono mu ne kooku dañ koo dog yàlla dañ koo dog ci yàlla loolu yonent bi daanaka jàngale na saar jàngale wa man maata walam yaarif imaama zamanihi faqad maata maytata jahiliya mu ne wa man képp ki nga xam ne maata dee na walam yaarif te jamono bi ngay dee xamuloo imaama zamanihi kuy njiit kii sa njiiti jamono mu ne faqat sa dëgg-dëgg maata koog dee na maytata jaahila deewu réeraange léegi na yow lii bàyyi wax na ko topp leen ko ba pare yéen ngeen ne ñun bëgguñu bàyyi kon ñun su bëggut bàyyi kan la ñuy bëgg la ñuy bëgg kon nag noppalu leen bu leen liggéey ba pare di di di si séntu perte ndax nit ki seesmaan ne bu jógee pour liggéey rek bénéfice la soxla bu jegee pour jaamu yàlla rek da nga tiyaaba la soxla léegi yow ngay jaamu yàlla te leer doo ci am tiyaaba loolu xam nga ko parce que jàng nga wa man enrada an kaamil asri falaa yante fi képp ku woon kaamil asri bi gannaaw doo jëriñu léegi boo buggee jël kaamil boo nangoo bu dee nangu nag nga bëgg jël kaamil asri boobu def ko bàyyi bàyyi jamonoom passé na comme ni nga jàppee ne yonantu jamonoom passé na waaye seen xaqiqa moom mun ngi fii Cheikh Tidiane jamono passé na da ngeen wax ay wax yu fee mu neex leen ñu andi wax bi fii mun métti leen ñaata taalibe Baay ñooy wax ne makka dara nekku fa fu ko teg parce que yonent bi bu fa feeñ moo fa nekkatul wala moom moom moom moom la mbir mi waaw moo fa nekkatul moo génne àddina dégg nga ñaata taalibe Baay ñuy wax ne tamit Fass dara nekku fa nga yaakaar ne boo ko waxoon ci araam waa Fass du ñu andi problème wax ko ci araam nga xol dégg kon nag boo ñëwee tey nga ne tey Medina dara nekkatu fa ñu bëri ñoo lay pourtant ñu koy wax makka kon est ce que ñun ñu ngi maandu ah est ce que ñun ñu ngi wuñu kon biri yi ba mo bàññes moo fi ne bàññes fi de waye ci ban mazhar lii problem. problème bi fan yi rek dëgg nañ di wax xam naa dinañ ko teg muy wax ne euh, suñu mbokk mi Cheikh Ibrahim soxna di wax ak wax ko waaye génn na waxul ci dalil te yow alquran jàngal na wax na ne fa in tanazatum fi shay faradduhu ilallahi wa rasuli lépp li ngeen di xëccoo ak lu munti doon na ngeen delloo loolu ci sunna ak alquran léegi nag yow boo ñëwee bi nga ñëwee andiwuloo benn dalil moom daf la wax ne bàyyi ñes niirool ak yonantu da nga ko war a laaj yow lan nga bëgg a wax danga ko war a laaj lan la niirool ak yonantu xanaa yow jàngula abarkun ba daa naxwal ba mu jeex xanaa yow firiwuloo ko boko firiwul demal sama xaram mu firil lako deug nga bañis mi ngi jangale yonantu bi fofu yonentu gàttut njoolut te yo xam nga ne bay dafa njool leg noy def wax bobu yonentu dafa amoon sakar yalla te bay amul sakar yalla noy def wax bobu yonentu mom amuton takander bañis amna takander noy nooy wax bobu kon nag nañ ci bay xel bu baax nañ ci bay xel yonantu boo xoolee weñ du laal ci yaramam weñ yi naaw yi duñu laal ci yaramam def ak boobu yoon Baay Ñas ñuul te yonantu dafa boole weex ak xonq noonu nga def boobu kon est-ce que niiro nañ lépp kon niiro bi fan la Baay Ñas ak yonantu ñoo niiro waaye bi fan la yéen nag niiro bi fi ngeen ko jàppee mooy Baay Ñas ko bindee nu mu mel taxawaayam noonu la yonantu bi mel ay cëram nu mu mel noonu la cëri yonent bi mel loolu ay wax la rek kon suñ ne Baay Ñas dafa niru lan la lan lañ bëgg wax mooy sirru bi nekkoon ci yonent bi sirru boobu moo dem ci Baay xaqiqatul muhammadiya laha xalifatun fil wujud fi kulli asrin kon xaqiqat muhammadiya dafay am xalifa ci biir mindee fi ci jamono bu ne kon nag loolu mooy taxu di toxu di toxu ba ñëw ci Baay loolu mooy taxu taxu ba ñëw ci Baay kon moo tax Baay ne walim laa waaye ni yow ma muhammadin sarasiru fi haykali warwaay dégg nga kon nag lan moo tax man sama jëmm ji nekkul jëmm yonent bi sallallahu mu ne parce que siru bi nekkoon ci bi yu moo rogaan léegi nag siru boobu ak siru bi nekk ci baay bàyyi benn la kon bàyyi sa ak yonent fii lañ niiroo waaye bu dee da nga bëgg ba nga bëgg xool si zaahir rek jëmmu bàyyi bi nii déedéet niiroo ak yonent kon nag lii la la Cheikh Ibrahima Soxna di jàngal kon bu leen doon ay naafaq bu leen doon ay tappalekat xam ngeen bu baax li leen di wax da ngeen di bëgg boole ñi ñi ak doomu Cheikh Ibrahim yi da ngeen di bëgg boole ñi ñi ak sëtu Cheikh Ibrahim yi da ngeen di bëgg boole ñi ñi ak ñi ñi baax yi waaye loolu mun leen ko ndax yàlla bañ na loolu mun leen ko tuuti ngeen si sax parce que képp kuy borom xel xam nga bu baax ñun lu ñuy wax lan la te xam ngeen ni ñun Cheikh Ousmane boobu la ñuy roy te xam ngeen ni Cheikh Ousmane boobu ku muy roy mooy Cheikhul Khayri te xam ngeen ni Cheikhul Khayri ku muy roy mooy Cheikh Ibrahim Cheikh ku muy roy mooy Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ku muy roy mooy yonantu yonantu ku muy roy mooy yàlla kon ñun li ñuy wax dafa leer lépp lu ñuy wax rek na ngeen ko vérifier laata ngeen di tontu dangeen ngeen amul kattan pour tontu kattan bi nag du wut doole bii du wut doole bi de xam-xam la kon génn leen ngeen tontu génn leen ngeen tontu kon ñu ngi sant yàlla bu baax kon ñu ngi résumé bayti bi mooy naa la jot na dégg nga wala naa la am na almunaa mbébétam man ki nga xam ne xat sa dëgg-dëgg ataani dikkal na ma awala si njëlbeen wa axiran ak ci mujjantal dégg nga yaa axiran yaa awala kon nag jot na mbébétoom ki nga xam ne dikkal na ma si njëlbeen ak ci mujjantel te wax naa la njëlbeen ñu njëkk topp baay ñoo ñoo ko dikkal si njëlbeen waaye mujjantel bi laataa baay di génne àddina ñooñu tamit ñëw nañu texe am seen mbébét waaye nag ñun ñi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw 75 ñun bokkuñ ci béyti boobu kon bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax képp kuñ fi nax ñu ne jot nga sa am nga sa mbébét te yow gannaaw 75 nga ñëw <laughs> da ngay nax sa bopp rek firil béyti bu baax bàyyi lii danga koy tamise kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne lépp lu jub yàlla la dëng jàmbi la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu بسم الله ما ميبك سمس ذات فين سين قون ديس حال جذب خير مودي برهما قون ديس حال جذب خير مودي برهما سنت يلا جلك سلمان غير نقوس بحر المحيط بل كاب يلا مويكي كيور شيخ الخير برهما بل كاب يلا مويكي كيور شيخ الخير برهما عثمان بو يو بور الحالي غاي